jërë ngeen jëf mbokki internet yi ci ànd bi ak kóolute bi fii ci Pikine Info information yi ñu leen di eh, digtal eh, di wax ci benn post boo xam ni eh, kile di Omar saw moom moo ko daal di poste fële ca page Facebook am Omar Sow nekk responsable politique APR nekk fële ca Yëmbal Nord moom nag la mu poste moo di ne rek dafa am honneur recevoir benn délégation mu nekk benn mouvement bu dudd ànd suqali yëmbal noor mu daal di leen di recevoir la nga xamante ni bi nag toftal na ko ca moo di ne rek mouvement bi dañoo fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi jëm ci élection présidentielle 2024 la ca topp sax deni Eh, ñi di eh, mouvement bi la ñu ca moo dina rek ñoom eh, ñu ngi doon ànd ak kii di du Mamadou Yatassay Mamadou Yatassay nag nekk candidat bokk ci élection présidentielle yi waaye gannaaw ba nga xamee ni bi def nañu sunu ay gëstu information boobu euh, fake news la maanaam du information bu tegu mu mel ni rek ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci nguur gi kii di mëma Mamadou Yatassaya gannaaw ba nga xamee ni bii nag jamono ji la nga xamante ni bii moom mu ngi koy jël ci wàllum liggéeyam ak li nga xamante ni bi mu ngi ko occupé terrain bi ci wàllum parrainage yi dafa daal yëngal seen bopp yi maanaam daal dañu koy bàyyi xel bu baax a baax ba tax sax ñu koy jéem a déstabiliser di ko def ay affaire bataille psychologique maanaam daal di jéem a wàññi dooleem di def ay publication yoo xamante ni bii rek wéerul benn yoon jërë ngeen jëf internet yi